asalaamaaleykum bok internet general TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaar di leen jox way di bëggé mbokk internet yëpp képp kuy suivre general TV rek ñu ngi lay bëggé di la siyaar di la jox way ah. di bëggé wa general TV pro équipe bi di bëggé suñu frère jaga euh, fay borom ndios mon borom marché Gueule Tapée maa ngi lay siyaar Mamadou Diouf Diouf Saltigué wala mané Boy Séeréer bu depuis Mbour di bëggee Mamadou sati wali waaw nekk Dakar ak euh, ki leen defal débriefing bi tay muy Pape le général ah borom Kaolack borom ngan alasan waaw di siyaar ñep nak di siyaar waa Kaolack yep wa di siyaar sama wa quartier wa ngan alasan wa ngan ser wa Okas Ndorong xam nga wa cafe ga fàttewu ma leen areba <laughs> di bëgg sama gaay yep waaw tay udah ñu ñew defal len debriefing ñu ngi tu baax di jéggulu si debriefing yi parce que ñaari week-end ngi nii wala ñetti week-end yoo xam gisu len ñu xat-xat la rek ak wante wek sama gaay ba tax na tay dal ñu ne xaaral ñu indi len ko présenté len ko quoi chaque mardi lay am bi troisième numéro ah. waaw tey nag ñu fas yéene indi le résultat yi nga xamoon ñoo amoon weekend passé mën naa ne dina xaw a yaatu tuuti nag parce que waaw dañuy euh, commencé le 10 le 10 juin 2022 amoon nañ benn gala fii euh, ci lat mengé Kaolack la nekk ginnaaw Kaolack boo ñëwee ba Kaolack ñëw Koutal croisement Thiawando nga jàdd jël tali bi jëm lat mengé à gauche dëkk docteur Macoumba Diouf moo amoon làmb le 10 juin 2022 foofu nag keroog bi ñu fa demee jour journée ba gis nañ fa waaw macha allah tegaloon nañ leen mise bu am solo mu doonoon mise de 1 million de francs CFA waaw mais dese woon na bëri poids ndax euh, bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoo nekkoon poids lourd favori gisoon nañ fa général Malika moo fa nekkoon Lamine Diop Rajaxe usine technique bu Ngoundiane ak Saaka Dior numéro 2 Dakar fa newoon mais au finish euh, ki nga xam ne mooy général bu Malika ndeysaan Mohamed Bayo moom mu jël drapeau bi benn drapeau la woon général Malika moo ko jël ci usine technique bu Ngoundiane gis nañ ne usine technique euh, moo fa génnee Saaka Dior si demi finale yi général Malika tamit moo fa génn kii di rajaxe si quart de finale yi waaw loolu la ñu amoon foofu Latmingué euh, boobu le 10 juin 2022 la woon foofu ca Latmingué ah. ñëwal leen lambu Joal 11 juin 2022 gaa yi tegoon fa mise bu am solo mu doon 17 bëf ak benn fas waaw mise bu am solo nag lañ fa gaa yi tegoon mu amoon trois catégories moom tamit bu ñu demee ci raw gaddu yi gis nañ ne Wos Jordan rakk ci Jordan bu mbuur moo jël raw gaddu yi ci instant bu Mbour. waaw kon foofu mën nañ 100 pour cent mbuur lañ amoon ci final raw gaddu bi biñ ñëwee ci final point léger bi ñu amaat lébu bi ba tey Pa Moussa Bargny di rakk ci Queens waa ak Njaanjaay bu Ndaayaan kooku 100 pour cent lébu la ndax Bargny Ndaayaan moom benn la point yi ñu gis kii di Pa Moussa booy nga xam ne mooy booy Bargny macha allah ñoo ngi compétir ñoo ngi def lu am solo ci lutte lutte simple bi vraiment ñoom Pa Moussa ñoom Seyni Bargny ah, ñoom Aldemba Bargny xam nga bëri nañ ñoom kii magu Seyni bi maa ngi fàtte tur bi Malta Bargny waaw macha allah ak yeneen xale yoo xam ne nii waa ñooy wane seen bopp si lutte simple bi di leen ñaax naan leen noonu la ñoom saa bar ñi naan leen noonu la lutte simple kenn moomu ko lamb sa lamb sax laay wax ñun ñoo ko moom ñun Sénégal kenn moomu ko ku gëm sa bopp dëggal sa bopp rek war nga cee mën a lekk te bu ñu xoolee sama gars macha allah ñoo ngi wane seen bopp daal waaw di leen encouragé bu baax a baax a baax bu ñu demee keroog ci poids yi nga xam ne moo amoon foofu Joal le 11 juin ki nga xam ne moo ñëwaat muy Serigne Ndiaye 2 ndeysaan le phénomène waaw nee naa leen instant yi moom waa saf na ci sàpp de Serigne Ndiaye moo ko jël keroog ci ngañ seen seen bu njaga ñaaw waaw Serigne moo ko fa daan keroog final le 11 juin loolu si Joal la xewoon ah. Euh, le 12 juin lambu Dakar Dakar amoon na lambu arène Adrien ah. amoon na lambu le 12 juin Ndiol Zayan bu bari ñi Ndiol Zayan borom àll bi <laughs> borom drapeau yi ah gars yi naan ko 2 mètres waaw Ndiol bu bar ñi moo ko jël ci alliance bu Ngoundiane loolu le 12 juin la woon. foofu si arène Adrien Senghor leen fàttali ne 12 juin boobu si bés boobu amoon ñaari gala ñoo amoon Dakar am na bu amoon stade Iba Mar ak bi nga xam ne moo amoon arène Adrien Senghor léegi bi ñu demee si lamb bi moo amoon stadium Iba Mar Diop le 12 juin encore foofu amoon nañ fa gala bu neex mu ne woon structure Manga Production ñoo fa tegaloon gars yi mise bu am doole waaw mise bu am solo sax mise bu 5 millions de francs CFA waaw di bëggee waa structure bi yëpp di bëggee sunu grand frère Alex. <laughs> maa ngi koy bëggee di ko siyaar di siyaar waa structure bi yëpp ah seeni barñi di moins seeni barñi seeni bu barñi moo jël raw gadu si El Hadj Mbar ñoo ngi tuub di jégalu ah seeni barñi ndeysaan borom barñi mu nekk ndaanaan nekk révélation si xale yi moo ko jël keroog euh, ci El Hadj boo ñëwee si poids légers yi ki ñuy wax Tony Junior waaw borom kër mbir ah Tony Junior borom war jaxal Tony Junior ndaanaan la moo jël poids légers si Gandia Fama ndeysaan l' espoir de Ndiombato ah, wala ma ne le prince de Ndiombato Gandia Fama mooy mu nekk ndaanaan Tony Junior moo jël keroog poids léger yi ci kawam boo ñëwee ci poids lourd bi ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye 2 borom Fass borom Colobane borom Medina borom Gueule Tapée borom Ndiaffate Diop Moussa ndeysaan waaw di champion bu mag di ndaanaan boo xam ne kenn du ko présenté waaw def lu rëy ci làmb moo ko jël poids bi si Serigne si Doudou Doudou Sané Mamadou Lamine Sané Xadafi Diofior moom it nekk ndaanaan boo kenn dootu ko présenté si lutte simple waaw loolu moo fa amoon keroog le 12 juin. 2022 kii di Serigne Ndiaye mo jël poids lourd bi Tony Junior jël poids léger yi Séni Bargny moo jël raw bi waaw lolou le 12 la wona ah, le 12 juin. 13 mhm. juin hein ah, fofu sa yaay ah. ma mm, ki ñuy wax Yann Bass moo ñu fa owoon tegaloon gars yi mise bu am solo mu don 2 millions 500 réparti en deux catégories poids léger et poids lourd waaw bi ñu demee si compétition yi ni la fa tëddee ki ñuy wax euh, Moussa Kaling Moussa Kaling mo jël poids léger bi ci Fodé Mbissane. doomu Fissel bi ndeysaan Fodé Mbissane di ndaanaan mais kenn du Moussa Kaliñ keroog gis nañ seen combat bu neex lañ fa bëri ñoom ñaar mais par la fin ci la ko Moussa Kaliñ daan ci final poids léger yi bi ñu demee si final poids lourd gis nañ fa Fambuda Fambuda Basul Famara Sarr la Samo nee naa leen macha allah dafa mandi bëre dafa compétir dafa am compétition ñox Fambuda moo jël poids lourd bi ci aada booy bawol aada Jean booy bawol borom parcelle. loolu le 13 la won le 13 juin 2022 fofé ci yaayam di le 16 juin le 16 juin bi passé kooku waa IFAN ñoo ñu fa won IFAN ASC IFAN ñoo doon fête seen cinquantenaire IFAN nak nek ASC bo xamné ne ASC bu mag la fi ci Kaolack ci Sénégal sax lay wax rawati na fi nga xamné moy diwana Kaolack parce que bokku na ci ASC yi nga xamné ñoo ëpp trophée fi ci région de Kaolack moy ASC IFAN ñoo doon mm, fête seen cinquantenaire boole won ci nak journée bo xamné journée bu rus la won mais lenn rek moo moo moo sàllaloon journée bi keroog mooy maanaam dafa annonce bi dafa jàllatoon annonce bi dafa jàllatoon te nag wax naa ne lu simple moom képp koy tëgg waaw te nga bàyyi fi la famille TV boobu waa sa programme am na am nu muy demee ba na ñun dañ cay yéex jot boo leen seetee lim jot am noonu sax waaye ñun ñoo ci joué parce que ñun ñoo jël affaire yi partagé ko ak sunu gaay mu yaatu ñi si jot war see jot. mais tegoon nañ mise am solo ñoom it leen jaajëfal naan leen noonu làmb gëjoon na ñoom indi nañ ko keroog dekkal ko.

ñom petit sele waaw poilese bi neexoon na dal neexoon na trop ay naataango ñoo fa nekkoon mais au finish eh, ki ñu wax alias jeen la révélation né na len révélation la ci xalé yi moom alias jeen di ndanan bo xamné ne kenn dootu ko présenter ren fokk na bokku na ci révélation yi wa fi ci diwanu salu mom woné na fi bopam lol lol lol lol lol lol lol machallah parce que lim am ci drapeau machallah bari na lim am ci final tamit beri na mom alias jeen mom mo jël poids bi ci stëll bu ndaw stëll bu ndaw di ndanan parce que kéro gis na ko lat mi ngi muy compétir ci poids lourd su ma juumul quart de finale la ñàkk Usine Technique ko génne mu ñëw Kaolack si poids légers yi finaalu ko waaw loolu moo amoon le 16 juin si euh, poids légers yi bu ñu demee ci poids lourd bi tamit poids lourd bi keroog euh, gis nañ amutoon ay mbër huit poids lourd lañ amoon huit poids lourd ñu tegal leen mise un million dèjà boo bindoo rek am nga vingt mille francs une somme de vingt mille francs loolu nekkoon loo xam ne ne xawoon na doy waar maa ngi tooñ gars yi sax ba leen waa man téema <laughs> téema jël licence bi ñëw bind wala ma abbu licence ñëw bind pour am ci vingt mille francs yi ah mais nag quatre wala trois favoris ah. parce que général Malika moo fa nekkoon Papa Ngaan Sosox moo fa woon Dijé Mbër moo ngi fa woon hmm, ak kanaat moo leen ak Batista bu Kaolack waaw quatre personnes yooyu ñoo newoon favori ci demee ci compétition yi gis nga ñoom ñoo des carré d'as bi muy ci demi-finale parce que général bu Malika moo fa daan ki nga xam ne mooy Batista bu Kaolack demi final kii di Papa Ngaan Sosox moo daan Dijé tamit ci demi-finale yi foofu. biñ demee final poids lourd ñu am final bu neex si euh, diggante général bu Malika. ak Pape Ngane Sosox boobu moom boobu mu nekkoon seen quatrième rencontre waaw parce que bi ñu introsé ñoom bi ñu leen introsé ñoom ñaar nga xam ne mooy Pape Ngane général Malika daan na ko trois fois waaw bi ñu ko laajee général Malika confirmé ko bi demee ci combat bi tamit gis nañu général bu Malika moo ko jël ci kaw Pape Ngane Sosox moo daan Pape Ngane Sosox muy 4 à 0 loolu moo amoon le 16 loolu moo amoon le 16 juin 2022 fii ci stadium bu Kaolack mu doon journée boo xam ne waa ASC IFAN ñoo ko organisé mu doon Euh, fii nga xam ne moo nekk arène Adrien Senghor amoon na làmb tamit ñu tegaloon fa mise bu un million de francs CFA ki nga xam ne mooy caaka fay biram konkong ndeysaan nee naa ko mooy mooy mbër bi gën a fair play waaw man boog su ma ko doon dinaa ko boole ci mbër yi gën a fair play ci arène bi waaw le lutteur le plus fair play de l'arène caaka fay ndeysaan borom carrière bu rafet bi xam naa ne daal waaw ay attaques yi nii moo ngi wane boppam saa yi ñëwee gars di ko ruubi na daa màgget keroog dégg ngeen ko ñu koy tooñ ci interview bi naan ko gars yi ne nañ da ngaa mu leen sama màggeteem déet dina leer ci kanam borom kunkung ndeysaan di bëgge waa kunkung waa gàncaay xam nga waa région de Kaolack bi yëpp waa waa njëbel ah waa Maka xam nga suñu limee dañuy jum di bëggee ñëpp daal waaw ko moom caaka fay bu kunkung ñu naan ko abisele kunkung biram kunkung moo ko jël ci El Hadji Ousmane ñu naan ko bukki ndangaan loolu 19 juin la woon ci arène Adrien Senghor ñu tegal leen mise bu mise bu tolloon ci 1 million de francs CFA organisé par Soum production ak seen patron di Ablaye Diop bu Souma. waaw ñu ñëw foofu rek ci Caaka Fay Caaka Fay macha allah gis nañu week-end yi moo yoone boppam parce que keroog moo jël Gandiaye jëlee ko ci fils de Badlen Siki le même jour bi mu jël Gandiaye moo fa génnee El Hadj Ousmane par point quart de finale jël lambu ji ci fils de Badlen Siki. waaye ñëwaat na keroog euh, arène Adrien Senghor jëlaat ko ci Alaaji Ousmane encore Alaaji Ousmane tamit di ko félicité di ko encouragé moom it ndaanaan la gëjoon na ci làmb mais gis nga ren bi mu ñëwaatee marqué na empreinte am parce que jël na dimanche dimanche 29 arène Adrien moo ko jëloon ñëw final waat dimanche 19 ah arène Adrien encore kon di ko ndaanaan la gànjaay keroog gis ngeen ko demi final la ñàkk caaka faye ko génne demi final hmm, moo fa daan général Malika keroog quart de final moom Alaaji Ousmane di ndaanaan dañuy dem ba arène nationale arène nationale amoon na lamb bu neex combat waaw combat lutte avec frappe moo fa amoon ki xam ne mooy franc ah, nekk parcelle waaw nee naa ko la njaago bi njaago or moo fa amoon combat franc bu jàmbaar wrestling academy waaw ñu gis eh, waa parcelle lépp gunge ko ndeysaan moo ko eh, soq xam sa cosaan 200 cent pour cent ñu gis teewaay waa Pikine yëpp Ama balde Ama Sène Boy ñoom ñëpp ñëw jàppale ko nga gis tamit boo demee parcelle ñoom Modou Lo Papa Sow xam nga ñëpp mu doon journée journée journée bu neex macha allah mais au finish euh, si combat bi ki nga xam ne mooy Franc le super Franc ki moo daan soq waaw Franc moo fa daan soq loolu 19 juin la woon ci arène national mu doon combat bu neex nag waaw xam naa ne Franc moom ñoom ñaar sax lay wax làmb am na si ñoom yaakaar waaw loolu moo fi amoon sama gars yi weekend bi ñu jëlee ko du 10 ba fi ñuy wax ak yéen le 19 juin bi passé loolu moo fi amoon ba tey ñu ñëw yéen rek euh, ci combat ba tey di leen annoncé ne kii di duubal duubal bu jagle ah am na combat duubal mu yooyu si turu Eumeu Sène Junior si arène bi am na combat tëngeej mokk ak Franc 2 loolu tëngeej la ah. duubal borom jagle borom ñoom baatu ndeysaan moom it la. bu ñëwee si le 26 ah ci le 26 boobu Kaolack am nañ fi combat nommé bu neex combat. lutte avec frappe nga xamne moy licence licence bu Koutal moo fi wara a ak champion bi di ndóondoor bu ndaj bu jalañ wala waaw loolu tamit ci le 26 lay am waaye yaa mosoo production ñoko organiser and ànd ànd seeg patron pap mbay batay tey leen ci lamb nga xamne mo moo am dangan sam le 18 juin waaw le 18 juin dangan sam waroon am lamb mais dañ ko annuler dañ ko annuler à cause de la pluie wa ci information yi ñu jot yi ñu jot waaw ñun dal ci lolou lañ mëna a sukkandiku gars yi ñoo ngi ko doon xaar nak

Mhm. loolu moo fa amoon mu naroon na làmb bu neex parce que déggoon nañ fa ay champion yu mag ñëwoon nañ teew mais noonu la mënoon demee waaw nit du lekk du wërsëgam ñu comprendre ko doon xam ne dañ doon tëgg ay journée mu réussir kon bii bu ko tëggee mu demee nii rek waaw nii la waroon demee. ate sama gars yi loolu lañ di indiloon ah nekkoon débriefing ngeen ànd seeg euh, Pape la général wala nga ne général bu ngaan borom Kaolack borom ngaan Alassane ndeysaan waaw di bëggee waa Kaolack yëpp rek di bëggee sama waa gaale fii ma nekk sama kër maam maa leen bëggee samay nijaay ñoom ñëpp. di bëgg di leen jaar di bëggee sama waa Gale Town sama ñoom papa sama ñoom tante sama rakk yi fa ne xam nga ku lu luxum sama limee damay jum di bëggee waa parcelle 1 ba 26 fa laa njëkk ne waa rond point case bi ah di leen bëggee di leen jaar naa leen maa ngi ñëw na mu ngeen mi maa ngi ñëw di bëggee sama gaay yi waa Areba Are Okas Are Boulangerie ah ya. waa Buntu Pikine waa Are Galaye ya. ah ñëpp baa um, du ma leen fàtte di bëggee waa mbokk internet Général TV yëpp hmm, ko ci mel ni sëñ Seex borom sikatrum katrum ya, ah maa ngi lay ziar Sidi Diop borom jafe liet na Aliou Sène liona liet na Aline Sarr ah. di leen bëggee di bëggee grand baaxum le douanier depuis Diouroup grand Wali Sarr ndeysaan su ma rek damay jum bokk internet yëpp yëpp yëpp yëpp Isma job Sanjara xam nga Cheikh Diouf taalibe Baye Karim borom Ficelle waaw su ma limee damay juum gars yi bëri nañ yaatu nañu dafa yaatu di leen remercier nag waa di lancer benn appel di leen jaajëfal yéen mbokk internet Général TV parce que gis nañ Général TV moo ngi ci 60 abonnés plus de 60 abonnés loolu bu amé yalla ak yeen la yeen bok internet yi di len jaajeufal bu baax a baax wa di len ñaan ngeen gën cee japp ñepp ñi nga xamne abonné nañ ñuy sétane di partager di aimer di commenter ñi nga xamne abonné gu leen te yéen sétane tamit di len ñaax xam nga di len ñaan ngeen japp ci xamne ne bi seen shit la seen jeune frère moko mom xam nga di dundu lamb bëgg lamb xam nga foofu dox luñ fa dara du du lamb ba tax na ñu leen di ñaax képp ko ko ne abonné ko té di sétane ñu lay ñaan nga abonné dañ ñoo dolel waaw di jaajeufal mbokk internet yep yep yep Général TV di leen bëggee bu baax a baax a baax di leen jox wàcc ay di bëggee équipe bi équipe bu Général TV Général TV Pro Faye Ndiaga borom Jos Mon borom marché Gueule Tapée le grand boucher di bëggee Boy Séeréer wala ma ne Mamadou Diouf ah Diouf Saltigué maa ngi lay bëggee bu baax <laughs> Mamadou Sarr mon frère depuis Saate Wali nekk Dakar ak euh, frère am Moussa Dione grand Assane Ndiaye Saate Wali di bëggee sama gars yi du Mamadou Boga Ndiaye Aliou Ndiaye Saate Wali waaw di bëggee suñu grand yi ne fii Kaolack fii ñoom Baal Baal Nduboor Babacar xam nga waa Nduboor yëpp waa Bélé Bé hôtel Dior Fara Audi waaw yaatu na daal di bëggee kuluxum rek képp ku xam Général TV képp ku xam wala nga ne képp ku xam Général bu ngaan rek maa ngi lay bëggee di la siyaar di la jox wàccuwaay di leen jox rendez-vous beneen week-end ah si beneen numéro ak beneen facette jaajëf sama gars yi di bëgg ci yéen lu ci dëng ngeen xam ne ci ñun la dañuy jéem mënaguñ lu ci jub na ngeen xam sunu sunu borom la asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf